voilà asalaamaaleykum mbokk yi dellu siwaat nañu ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi euh, ci dibéer ji ci waxtu wi nga xamee ne Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ñu ngi ñuy déglu ci synchronisation bi tey nag ñu dalal koo xam ne kii turam yaakaar naa ne duñu ko euh, laaj kenn ci Sénégal muy Cheikh Mbaw bu ko si COSYDEP Euh, di ko tatagal di ko jox wàcc waayam waaye nag tey jii itam ci wàllu njàng mi fi ñu toll nga xamee ne euh, lu baree baree bari ñeel na ko ba tey rek dégg nañu ñoo xam ñi tàmbali nañ xat di menacé ci wàllu ne daal boo deful ndànk njàng mi dana am ay jafe-jafe qualité njàng mi melokaan mi war nañ ci war a wax bu baax a baax xool itam li nga xam ne mooy li ñu yaakaar ci jongante yi examen yi ak yu demee noonu yëpp ak i daal école bi ubbite gii ak li nga xam ne moom la ñu déggoon mais Cheikh Mbow boo gannaaw boo nuyoo ba noppi COSYDEP mooy lan mooy lan d' abord pour que sénégalais yi xam nga xam ne sama maas gi nga xam ne jànguñu COSYDEP mooy lan. waaw ñoo ngi lay sant bu baax sëñ Maodo di rafetlu invitation bi di ñaan borom bi mu leeral xel yi ba lépp luñ fi wax mu nekk luy njariñ askan bi. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci émission bu màgg bi di jano bi. te sénégalais yëpp di ko xaar di ko suivre chaque dimanche. waaw COSYDEP day wax dëgg yàlla benn kuréel la. buy dajale ay kuréel maanaam coalition. ci biir kuréel bi tey war na toll ci téeméeru organisation yu ci nekk ñii ay ONG lañ xam nga Aide Action xam Action Aid FAWE et cetera ñii ay organisation d'enseignants lañ mooy syndicats yi wala collectif yi ñii ay association de parents d'élèves lañ ñeneen ñi ay chercheurs lañ parce que ñun lépp lu ñuy def dañ ko bëgg a laal ci gëstu ay universitaires yu nge donc ay membres lañ. Euh, ñeneen ñi ay organisation à la base lañ ak ay organisation de communication de responsable de communication COSYDEP mu ngi nekk ci gox-goxaat yëpp ci quatorze régions yëpp am nañ fay antenne COSYDEP Saint-Louis COSYDEP Ziguinchor et cetera parce que li ñu gëm mooy njàng njàngale bi li koy saafara nekkul ci kaw waaye ci gox-goxaat la si autour et dans les écoles moo waral ñu jox fulla suñu antenne locale yi lépp lu ñu def foofu la ñu koy jëlee ñoo ñuy permettre ñu tëgg su ñuy gis-gis gis-gis boo xam ne du fàtte Euh, li askan bi yëg ci mbirum jàng jàngale bi ak lan lañ ci yóbbante COSYDEP bi dafa nekk ci benn réseau bu mag bu nekk ci Afrique bu tudd ANCEFA boo xam ne trente neuf réew ñoo ci ne loolu nag liñ ciy ja liñ ciy gagné di si jàng mooy bëri na ay yoo xam ne ñoo ngi xew Sénégal te xewoon na Tchad wala ñoo ngi xew Sénégal te xewoon euh, Niger mën nañ cee jàng mu ñu échange d'expérience de bonne pratique donc ñu nekk aussi si réseau bu mag bu tudd euh, partenariat mondial pour l'éducation ak campagne mondiale pour l'éducation cent quatre vingt coalition nekk ci àdduna bi nekk ci continent yëpp Afrique Europe Amérique latine partout Asie foofu aussi dana taxit ñuy xam li xew feneen parce que àdduna nekk na àdduna boo xam ni presque soxlaatul dara looy créer waaye dangay ngay jéem a seet nan ngay jàngatee feneen pour gën a jubal li ngay def ak nan ngay dëgëralee li nga xam ne moom mooy sa réussite nag am nañ assise si biir Sénégal ci antenne yi ñoo ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique di waxtaan ak ñi nekk ci àdduna yàlla def it ñu nekkoon ci biir conseil d'administration pendant euh, du partenariat mondial bi nga xam ne mooy financé li ëpp ci suñuy suñuy réew nekk ci pendant six années juróom-benn at kon daal société civile lañ société civile ku ko wax mooy dañuy def veille alerte ak proposition maanaam bu nguur gi ne lii ñoo ngi koy def si njàng ak njàngale bi ñu wax suñuy antenne ak suñu ñu fay représenté seet leen ndax li ñu diggee ak li am ndax wuute na am déet sur cette base ñu def ay rapport alternatif pour wax nguur gi lii dëggal nañ ko ñun de gis nañ ko ci suuf wala lii ànduñu si parce que gis nañ ni diggante li ngeen wax ak li xew ci suuf am na différence donc mooy suñu loolu de veille mais li may tàmm di wax sama équipe mooy ñun bëgguñoo nekk organisation boo xam dafay yem kese ci jafe-jafe yi dafay yem kese di souligner def li ñuy def diagnostic waaye dafa dugg dafa dugg it ci ay proposition lii kat war na fay jóge ñun lii la ñu proposé li ñu proposé mën naa bañ a baax waaye war nañoo jël di risque di jël ay initiative di def ay proposition loolu moo waral ñu mën a amal njariñ njàng meeg njàngale. très bien alors Cheikh Mbow ci loolu xam nga fan yi mu génn comme yéen da ngeen di am rôle bu ngeen di jouer mooy alerte ak veille xool itam mbir yi mbiru gendarme bi yi en tant que COSYDEP ban ban jàngat ngeen ci am problème mu voile bi parce que foofu tamit jàngale la école bi nag école laïque la ban ban jàngat ngeen ci am. waaw dafa nekk mbir moo xam ne ñun. Euh, li ñu njëkk a wax mooy sensibilité question bi parce que tey boo xool réseaux sociaux yi di liir maintenant c'est fini c'est fini hein il paraît waaw c'est-à-dire que tey ni mu mujjee ba ñu ne xale yooyu danañ dellu ci lekkool bi ñun dañuy tàccu kontaan ci. parce que coow lu coow yi mooy euh, bu fekkee ni ak xale yi xam nga xale yi defuñu dara lu ci ëpp histoire mag ñi coowu mag ñi ak gëm-gëmu mag yi mooy ñëw daanu ci xale yi. donc xale yooyu bu ñu amee possibilité tey duggawaat ci école bi dafay nekk loo xam dañu koy rafetlu di ko tàccu. mais dañu jàpp ni. faj nañ li xew ci xale yooyu ñaar fukk xale yooyu ñaar mais est-ce que faj nañ mbir mi en profondeur. ba mu jeex tàkk ba nga xam ni ñu waxati lu xaw a niroog loolu. wala bokk li xew Sainte Jeanne d'Arc nekk prétexte pour ñu xoolaat nan la ñuy doxalee suñu njàng ak njàngale yi ba nga xam ni vivre ensemble mooy bokk dëkk te ñu wute comme ni ñu koy defee ci parce que xam nga école bu ñu fàtte ni dafa mel ni rek àdduna bi école àdduna la. société la en miniature comme ni ñuy wax ñëpp fay daje. yow nga nekk murit man ma nekk xaadar kii nekk tijaan kii nekk catholique kii nekk musulman kii nekk wolof ki nekk séeréer mais war nañoo mën a seet nan la ñu cohabité ñu am ay ngëm-ngëm yu nga xam dafa wuute kon nag jàpp nañ ni euh, faj góom am na waaye nag bu nekkee da nga bëgg a faj véritablement góom bi da ngay dem en profondeur boo ko deful li xew mooy Sainte Jeanne d'Arc ñëwoon na fi 2011 coow li mais dañ koo raay raayaloon ah, jamonoy Kalidou Diallo ah mo jógoon na fi 2011 jamonoy Kalidou Diallo ñëwoon na fi ci weer yu passé mois d' avril ñëwaat na fi ci weer wi ñu ne muy mois de septembre su ouverture bi. ok trouvé solution ba xale yi ñoo ngi dugg ñoo ngi remercier di féliciter ministre bi ak autorité yi. Mhm. waaye jàpp nañ ni bu ñu denc bu ñu ranger euh, coowu centre Jeanne nañ ko gën a gëstu gën ko xóotal ba ñu xam nag maintenant suñu lekkool yi nan la ñu war a dundee différence. nan la ñu war a dundee vivre ensemble sa morom donc loolu war nañu koo xool euh, xool pratique yi ba nga xam dana ànd ak ñun li nga euh, nation bi ñu bëgg a tabax pour réew mi parce que bu ñu nee dañu bëgg am Sénégal boo xam ni du am xejj ak seen am école boo xam ni du am xejj ak seen parce que loolu la suñu loi d'orientation d'orientation wax loolu la suñu constitution wax ce n'est pas parce que muuru naa wala takk naa croix wala xees naa wala ñuul naa que évidemment que mu war a am ñu ñuy beddi ak ñu dul beddi waruñoo nangu Sénégal ñu dem bañ ne école bi ku dul jullit du fi jàng wala école bi ku dul chrétien du fi jàng bi waa Saint-Louis kese ñoo fi jàng wala école bi école lébu yi kese la kon nañuy fexe ba am école boo xam ne dafay refléter république bi dafay refl dafay dafay dëgëral nation bi ñu war a doon ba nga xam ne boo laajee nit sax ne ko Alaaji Maodo yow lan nga balaa mu nan la man Tijaan laa mu tontu la ne la man Sénégalais laa balaa mu nan la man la man Sénégal donc notion nation boobu. pour ñun fi ñu koy tabaxee mooy ci biir l'école yi. konte nag euh, jàpp nañ ni li xewoon euh, am na ba pare utal nañ ko solution ci li xew tey waaye war nañ ko gën a xóotal ba nga xam ni li am dootul amati mukk te pour def ko nag évidemment ay waxtaan la yu xóot yu ñu war a yu ñu war a lal ci nan la ñu gisee laïcité nan la ñu gisee dundaloo vivre ensemble ban ban rapport la ñu war a am ak yeneen agenda caché yi am ci àdduna. yi nga xam ne mën ñoo ñëw dal. ci suñu suñu façon dundin nan la ñuy fexe ba ñun compréhension dund bi ñu doon dund laïcité parce que Sénégal kenn waru ko jàngal laïcité damay gis yenn saa yi sax ñu jël exemple naan laïcité en France ñun dañu ñun boobu du suñu référence am nañ duñ ko doon dundee Senghor moom njëkk a nekk suñu président de la République chrétien la woon 95 xam nañ rapport yi ma doon am ak sëñ sëñ Fallou et cetera donc ñun kenn duñu jàngal laïcité man suma meilleur xarit moo ngi sa moo ngi tudd Guillaume Casimir Hyacinthe Gomis maa ngi koy nuyu au passage léegi mu ngi Paris ñoo doon bokk di fanaan donc fànn boobu kenn mësuñu koo tudd kenn mënuñu am lu ñu si jàngal maintenant nag ñun gis-gis bi ñu am na la ñuy fexe ba aar ko protéger ko ba keneen du ñëw imposer ñu leneen wala gi wan ñu beneen façon bu ñu war a dundee loolu pour ñun dafa nekk mbir bu am solo konte daal seen gendarme bu ñu ci doon wax mooy rafetlu li nga xam ni faju na tey mhm. waaye it ñu bañ a tëdd nelaw mhm. te xam ne adduna ba bañ mu yeewuwaat jéem a xoolaat lii xew ci yeneen l'école yi yeneen pratique yi mhm. ba nga xam ne suñu constitution ak Sénégal bi ñu bëgg tabax pour am ay benn sénégalais du ñu am ay profil de sortie yu yu wuute kii daara ji lu jógee li euh, muy génnee dina ñëw jàkkaarloo ki nga xam ne moo ngi nekk génne ci école tubaab bi mhm. kii ci école chrétien la jógee kii moo ngi jógee école musulman nan la ñuy fexe ba am benn profil de sortie am benn sénégalais benn citoyen boo xam ne mooy tabax ak boot askan bi ñu bëgg pour ñun loolu nekk na mbir moo xam ni buñ ko fàttewul euh, coow li évidemment dana am lu ñu jariñ parce que dana tax ba ñu mën a xoolaat li ñuy doxalee xoolaat suñuy pratique d'accord mbokk yi ñuy déglu ma fàttali na ba léegi ñu ngi toog ak euh, Cheikh Mbow ko si def euh, ñuy waxtaan ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu njàng mi ci jamono yi nga xam ne fan yi néew moo tee ñu ubbi l'école bi alors la qualité bi fi ñu toll ni parce que mënuñu ko bañ a waxtaanee mais constat a doy dafa nekk loo xam ne Sénégal yi wax mu ne njàng mi baaxul léegi njàng ma baaxul wala njàngin mi moo baaxul wala ñu ñu formé ñoom ñoo mënta jàngale lu xew wala boog affaire bi si en amont wala boog affaire bi incha allah lu xew. waaw c'est-à-dire que ñun pour ñun bu ñuy wax ci mbirum qualité. qualité de l'enseignement de l'enseignement waaw lu ci ëpp dañ koy yemale dañuy am benn bët kese benn gis-gis maanaam di seetlu ndax ñuy jàngale forme nañ leen bu baax am formé leen bu baax ndax mel na nañ jàngalekatu daaw ak daaw jéeg bi nga xam ne moom lañ nawoon wala ñuy xool kese. ndax euh, li ñuy jàngale doy naag doyul non pour ñun entrée multiple la maanaam bu nekkee da nga bëgg faj mbirum qualité da nga jaar ci fenêtre bi frontière bi jaar ci bunt bi jaar ci fànn bu ne war ngaa xool xale bi fi muy jàngee environnement bi muy jàngee est-ce que may na ko nga am qualité bu nekkee environnement bi ngay jàngee dal du fa am yow xam nga lépp li xam si cantinisation école yi nga xam ni boo fay dëggu di jàngale wala ngay jàng coow li musique bi marché bi ko wër kooku mënuloo fa am résultat. école boo xam ne abri provisoire la fas yi di jàll muus yi di jàll mënuloo fa am donc environnement des enseignements apprentissage mbir la boo xam ni boo ko xoolul doo am qualité mais doo ko xool moom kese boo koy xool da xool en même temps loolu ñu tuddee jàngalekat bi. Mhm. est-ce que am nga jàngalekat boo xam ni ñoo ngi koy tàggat ci waxtu wu doy bu njëkk ñuy fàttali que jàngalekat doo nañ ko tàggat ba si ñeenti at mu dem ba ñu koy jàngal si benn at léegi ren suñu suñu réew ñetti at yi passé 2011 depuis 2011 ba léegi. ñu jàpp ni jàngalekat war nañ koo tàggat ci benn at waaye ñun li ñu gis parce que wax naa la ñun société civile lañ diggante li ñuy wax ak li am si terrain bi dañ koy dañ koy dañ koy tollale li ñu gis mooy en réalité suñu jàngalekat ñoo ngi leen former que sur six à sept mois konte nag waxtu wi leen di jàngal parce que jàngale métier la yow mi mën nga tuuti ah. tuuti na six sept mois dafa tuuti àndul ak li nga xam ne moom la ñu wax parce que at la ñu wax donc jàpp nañ ni te Sénégal fi ñu leen di jàngalee moo ngi fi ay kër la yu am mooy euh, centre de formation yi ñi leen di jàngal xam nañ leen mooy ay inspecteur lañ kon amul lenn lu war a tax ba duñ leen jàngal lu mu tuuti tuuti ci at ba mat sëkk kon nag euh, jàngale métier la nit mën naa am diplôme bu ne bu dul jeex te mënta jàngale mooy waral yow xëy na sax booy gunge sa doom ci kër ga di ko jàngal yenn saa yi nga yuux ko parce que amuloo pédagogie pour jàngal donc métier la donc ni leen di tàggatee pour ñun am na solo liñ leen di jàngal ci jàngale li ñu leen di jàngal pour ñu jàngale ko loolu aussi am na solo mooy référentiel de formation. mais aussi ñu leen di motiver ba nga xam ni jàngalekat bi xel mi bu duggee ci classe bi xel ma du nekk ci dépense bu maatul xel ma du nekk ci dañ may waaj génne suma courant dañ koy fay euh, ñu leen di ba nga xam ni xel yëpp day nekk ci générosité bi ñu soxla ci moom ba nga xam ne dafay nekk totalement disponible pour xale yi gunge xale bu ne. loolu pour ñun aussi am na solo par rapport à la question enseignante donc seen seen formation mais aussi jàngale dafay nekk loo xam ne dafay avancer. xam nga jàngalekat bi ñu formé woon ci je ne pas en en en neuf cent quatre-vingt ou même plus récemment kooku tey dana jàkkaarloog yeneen jafe-jafe parce que tey am na réseaux sociaux yi nan la war a def ak sociaux yi donc am na yeneen mbir yu xew yoo xam ni war nañ ko di nafaraat di ko tàggataat di ko jàngalaat ñi koy tàggataat mooy inspecteurs yi tey Sénégal boo jëlee benn inspecteur euh, dafay mën a encadre trois cent jàngalekat mmh. or norme yi bu nekkee bëgg ngeen inspecteur bu ne topp ci jàngalekat bu ne di ko tàggat di ko nafar di seet lan mooy jafe-jafeem di ko ci gunge da nga war a am benn inspecteur pour au moins lu bëri ba bëri pour cinquante ense pour cinquante enseignants pour juróom fukki enseignants nga am. ak mais lan moo waral pléthore boobu ñu xëpp leen parce que simplement recruter recruter suñu suffisamment d' inspecteurs ba mu doy joxuñu leen moyens yi war a mën a tax ñu génn ci bureau inspection yi dem ci terrain bi di gunge xale yi di gunge jàngalekat yi donc la question enseignante en termes de recrutement. seen formation mais seen motivation dafa nekk mbir moo xam ne da nga koy xool soo bëggee lijjanti qualité. Hmm. qualité aussi boo ko bëggee lijjanti danga xool aussi euh, askan bi ban ban rapport la am ak jàng ak jàngale est-ce que am ngay askan boo xam ni bu xale bi jàngee ca école ba dana ko mën a suivre ca kër ga. est-ce que bu dana teel a yow fajar pour toppatoo ko mu dem ci l'école bi ni mu waree est-ce que bu yoree ñaar dërëm dana ci lijjanti kayitu juddoom bi mu war a am dana ci lijjanti euh, bagage et cetera donc rapport bi ñuy am si euh, bi askan bi di am ak jàngale bi dafay am solo dafa aussi am na crise de confiance dangay gis koo xam ni dafay yore lu doy sax waaye jaral na ko mu dajale ko. Euh, tontine ko pour yóbbu doomam saa Barça Barsak moo koy gën a jox xel mu dal que mu bàyyi ko si biir njàng bi kon est-ce que amati nañ confiance si jàngale bi ba nga xam ni xale bi fay génn dana yor jikko bi ma bëgg man waajur waaye dana mën a tekki ba mën maa changer man de situation sociale bëri na fi kilifa yoo xam ni tey bu du woon jàng ak jàngale li ñu doon duñu ko doon li ñu am duñ ko am. kon nag nan la ñuy fexe ba jàngale nekk ascenseur social comme ascenseur. nga mën see jaar pour tekki. jaar ci pour réaliser say rêves jaar ci pour changer de situation sociale confiance boobu ñu war a tabax diggante société bi ak euh, école bi loolu aussi pour ñun war nañ ci liggéey suñu bëggee def qualité parce que loolu mooy waral bu nekkee yow nekk nga waajur doo jàpp ni école bi jàngalekat bee ko moom wala ministre moo ko moom mais danga am fullawu topp école bi di seet ndax su may doom école bi ñuy jàng ndax am na ndox amul ndox bu amul ndox nga am noo taxawee est-ce que am na courant nga am noo taxawee est-ce que su may doom ñaata la toog ci par ba nga am noo taxawee mais bëri na ay waajur yoo xam ne sax tey boo leen laajoon sa doom fan lay jàngee wala ki koy jàngal xëy na sax amuñu rapport donc question boobu relation bi war am entre communauté kii bi dafay dafay impacter ci qualité bi contenu wax nga ko li nga xam ne moom la ñuy jàngal xale yi est-ce que méngoo na ak ñun Sénégal bi di bëgg tabax ëllëg. Mhm. parce que tubaab bi moom amoon na fulla ba nga xam ni bi muy ñëw dañu jàngal fii ak système colonial. da doon tabax sénégalais yoo xam ne danañ ko lijjantil moom li mu bëggoon. mën nañ koo konteel. mën nañ koo peeseel mën extra. mais ñun am na Sénégal bu ñu bëgg bu ñu namm boo xam ne deux mille trente deux war am Sénégal boobu ñi koy tabax mais ci école bi la leen est-ce que am nañ contenu boo xam ne ànd na jël na orientation yooyu am na dana mën a fexe ba évidemment ñu am. Sénégal bu ñu bëgg tabax mais loolu nag waxtaan nañ ci si assises national yi. lii yéeme aussi Sénégal mooy bu ñu deful ndànk dana am benn keneen ku jóge ci beneen réew bëgguma tudd benn réew ñëwate suñu kër jël li ñu xalaat dem jëfal ko jëfee ko seen kër man dem naa fi Burkina nan damay jàng ji éducation inclusive mooy nan la ñuy fexe ba xale yi am laago yi ak jafe-jafe ñu mën leen a dugal ñu bañ leen a bedd ci école bi bi ma eggee dañ na ma fii nga ñëw di jàng si ñun Sénégal lañ ñëwoon jàng ji éducation inclusive ñoom fa lañ doon jàng ji ba man ma jóge fi dem di koy jàng ji foofu konte nag nan la ñuy fexe ba li ñuy tënk dañuy fëkk saafara bi quoi dem teg ko foofu dem saafara appliqué ko dafa mel ni ñun am nañ saafara bi même en terme du contenu nga wax en terme d'orientation du système éducatif li ci des mooy nan lañ koy jëmbalee jëmbal lépp loo xam ni jóge na ci assise nationale de l'éducation donc daal boo doon xool qualité danga xool waxtu wi ñu jàng ndax doy na xool ndax fi ñuy jàngee ndax mën naa tax nga am dal bi war a tax nga am xam-xam bi nga war da nga xool jàngalekat bi excellent donc qualité bi mooy reflété wu ci résultat bi ci résultat bi sont liés quoi c'est très lié donc relation dialectique la mënoo am bii boo bëggee am résultat bu baax da ngay répondre ci loolu ñu tuddee les normes de qualité Ah. mooy li tax ñuy wax qualité xam nga ñëpp a ngi wax qualité da ngay wax qualité wax qualité mais mhm. boo ma ne woon lan mooy qualité xëy na ni ma koy définir bokk bokkul ak yow ni ngay tuddee qualité mhm. bu ñu demee ba juboo ne lii mooy qualité lii mooy norme de qualité fii la ñu war a jaar ak jaar nii la école bi war a mel nii la jàngalekat bi war a mel lii lañu war a jàngale ba juboo ci norme de qualité li koy encadré bu boobaa lii mooy matériel bi ñu war a am support yi bu boobaa Euh, pour ñu am qualité bi tax ñu am euh, loolu nga tuddee résultat des examens boobaa dana ci mën dana ci mën a suivre mais tant ñoo ngi ci dispositif bi évidemment que euh, dafay xaw a poser. dafay dafay poser problème yu bari bari parce que qualité bi ak résultat d'examen yi pratiquement ñoo lié comme ni nga ko waxee léegi. alors ci loolu di ngeen dem ba mu yàgg vacances yi comme ni mu demee parce que naa dikk ci enseignants yi ah, parce que seen syndicats yi ñu ngi menacé et tout beneen beneen beneen beneen beneen beneen mbir la mais. vacances yoo xam ni dafay nekk rek pas de pas de vacances quoi non vacances pour pour waaw waaw mais non vacances pour l'école. am na am na suma conseil d'administration Hélène maa koy nuyu. nee na mais Cheikh day suma gars may woo ma mais yéen da bëggatul Sénégal ñu am vacances vacances dañ koo soxla. parce boo nee non vacances pour l'école. waaw en fait c'est les dirigeants wala c'est. yi la parce que dafa war a am vacances. absolument d'ailleurs jàngalekat bu jàngalekat bi bénéficié wu ci mais jàngalekat comme yow comme ku ne eh, benn weer nga am de vacances. mais puisque xale pédagogiquement psychologiquement dafa war a am ay waxtu yoo xam ne da ko war a noppalu waxtu yu mu war a tëdd waxtu yu mu war a fo. yëpp ci programme la et ça donc ñetti weer vacances ñoom ñoo ko moom mais ñun dañ Sénégal war na toll foo xam ne ñetti weeru vacances yi nañ ko bàyyi ak xale yi bàyyi ko sax xëy na jàngalekat yi nekk cré en mai ñoom ñu dafa ji ay gëstu waaye leader yi muy ministre yi nga xam ni dañu yore mbirum jàng jàngale wala ministre boo voilà ak secteur bu ko laal mais leader yi mooy ñi jiita jàngalekat yi leader yi mooy ñun ñi nga xam dañuy woote ni ay organisation société civile lañ ñetti weeru vacances dafa war nekk ñetti weer yoo xam dañuy toog di waxtaan biir bu ñuy kurpañante ñu kurpañante bu dul juboo ñu juboo ñuy xuloo ñu xuloo ku nekk indi say argument ba ñu tënk nag ci biir ñetti weer la ñu war a waxtaan li ñu war a waxtaan si la ñu war a jote li war a jote boo tënk ci nag ay consensus ni lii kat bu ñu ko defee coow li war a mën a am déwén danañ ko danañ ko mën a danañ ko mën a araftu trouver sa conscience bon pour ñun ñetti weeru la chance la pour éducation mais est ce que chance boobu Sénégal moo ngi koy mu ngi ciy profité ni mu waree est ce que dafa nekk ñetti yoo xam ni waxtaan wu xóot mu ngi ciy génn ba nga xam ne danañ ñëw séntu parce que ñëpp ay nit lañ yàlla may na ñu xel loolu mooy chance bi ñu am sa alaj Maodo dañoo am xel xel bi mooy tax ba mën ngaa xam ni fii ak ñetti weer incha allah yow mën nga ko ñu fekkee ko bañ ko fekkee lii mën naa xew Sénégal léegi boo ko xamee nag mais ñetti weeru vacances nag war nañ cee mën a nag tabax nag lu ñu juboo ba nga xam ni xale yi ñoom bu ñu duggee ci année scolaire bi ñoom du ñu am jafe-jafe ñun bu ñu jota ñu jota ñun si vacances yi yi et ñu dugal ko foofu waxtaan ci ba mu xóot mhm. trouver ci ay consensus mhm. ñu ne kat ah mbirum enseignants yi seen seen seen accords yi nga xam ne si signé nañ ko mhm. ci ñetti weer dañ leen war di dégg ñu ci wax ci ñetti weer yi euh, lépp lu jëm ci affaire këyitu juddu xale yi war nañ cee mën a wax ci ñetti weer yi loolu ñu ci tuddee système de rémunération si ñetti weer yi fan la orientation fan la ñu war a yóbbu ñetti weeri yi yooyu pour ñun moment la boo xam ne chance la pour système éducatif boo xam ne war nañ ci profité pour waxtaan ci lu xóotu xóot ci jafe-jafe bi mën a am waxtaan ci lu xóotu xóot ci njàng bi ñu bëgg a am trouver ci ay consensus jébbal ko kilifa bi nga xam ni moom la yàlla jox mu yore bouton de changement mooy ministère de l'éducation bu ko defee bu ñu duggee octobre ba at bi di tëj nag xale yi ñoom ñu am jàmm ñun daal loolu moo tax ñu indi suñu suñu suñu non vacances pour l'école tàmbale ko nag ci analyse résultat des examens indi na coow lu rëy coow lu rëy la indi Sénégal ba nit ñi sax duñu wax loolu ñu waxul nañ ne ah, da ngeen da ngeen bëgg ñu mu jaaxal ñu sax quoi mais li ñu ci neex mooy ñun li ñu jublu woon ci nos vacances pour l'école mooy justement mu nekk période boo xam ne ci la ñuy waxtaanee. waxtaanee contradiction donc souvent am na benn période boo xam ne correction ci la nekkaale ah et tout ça baccalauréat bon là c'est l'enseignement supérieur loolu yàggul. waaw non loolu. moo ngi benn intervalle la boo xam ni amul contrainte bi tax ba mënoo waxtaan ci biir vacances yi comme ni ñu ko bëggee. Mm-hmm. benn intervalle la boo xam ne am na ci. mais beneen bi mooy ñi nga xam ne ñun moom la ñu ciblé surtout ci nos vacances pour l'école comme j'ai dit leader yi la. donc leader yi xam nga ñoom demuñu sax ci examen yi di corriger donc pour ñun leader y compris leader communautaire nekk chef mais ñi nga xam ni ñoo jël ñoom engagement wu nekk ay leader ci mbirum jàng ak jàngale dañ ne lañ tout le temps war nañu waxtaan waaye particulièrement nag ñetti weer yi war nañ cee mën a tabax ay consensus ñu tax ba jàmm waa jàmm day am très bien donc Cheikh boobu ci loolu da nga da problème bu am solo mooy bu xamee loolu am na nga xam ne vacances yi da ngeen ci nga xam bu ñu ubbee xale yi ñoom mën a mucc Euh, jamono ñooy mais problème bi mooy bu ma juumul le 30 avril 2018 ah date bi benn benn rencontre amoon les enseignants ak kilifa yi nekk ci nguur gi am na ay accords yu ñu signé woon ah finalement dafa mel ne respecte ko xawoon na jafe daal parce que SAEMS ah, ñu Abdoulaye Ndoye dégg naa fii déjà ci rajo bi ñuy tàmbali xaar di yëkkati seen kàddu alors le non respect des accords conséquences yi mu juróon at yi yëpp ñu génn te lu tax gars yi mënuñu ko éviter. waaw mais ñun xam nga. non xam nañ am na problème kay. waaw waaw c'est-à-dire que ñun ñun ñun xam nga mën nañ cee wax. ndax ñoom bi ñuy waxtaan seen biir ñun dañ ñoo woowoon comme seede. ñun ay observateur lañ. man sama bopp dama toog premier ministre jamono jooju moo doon Boun Abdallah bu bu ñu waxee ñoom seen biir ba wax ba ñuy tënk ba fin ba mu jox ñu kàddu ñun ñu wax li ñu xalaat mais ñun li ñu leen mës a wax mooy du ñun ñooy négocier ñun société civile lañ yéen yéenay négocier hmm. jàngalekat bi am na droit ne man lii mooy suma ñaxtu oui absolument mais euh, nguur gi mi nga xam ne am nay experts yu doy am xam-xam bi doy war naa mën a segg ne lii nga ngeen ngeen ñaxtu lii mën nañ ko ci def waxtu wii lañ ko defee mhm. mais ñun leen ba leen xasee na ba tënk ne kii laaj na nii kii nee na ko lii laa lay jox ci waxtu wi laa la ko joxe ñun société civile buñ ci eggee ku deful li mu war a def danañ ci dut baaram wan askan bi ñun wax dëgg yàlla ay seede lañu woon te gis nañu dénoncé ko donc ñun loolu mooy suñu gis-gis maintenant li amoon 30 avril 2018 ko yooyu mhm. li ci beesoon te neexoon ñu loolu mooy dafa amoon li ñu tuddee monitoring des accords maanaam ñetti weer yu ne premier ministre doon dajale ministre concerné yépp ak jàngalekat yi ñu waxtaan ni poñ bu ne fan lañ ci toll mhm. ne woon naa premier ministre jamono jooju dina ko lii tànk dakkul jàppal ni dal dana am si jàng beeg jàngale mhm. dal da ci am parce que rendre compte wax fii lañ toll poñ bi avancé na bii avancé wul lii moo tax avancé wul délai bi lañ ko waxoon dañ ko pousse dañ ko mais mhm. fi ñu toll évidemment que sànq maa ngi wax sa sama benn xarit ne ko bu nee ah njàng école bi di ñëw ko dana jaxasoo ndax euh, ñaxtu bi bëri na je le ah, mën naa aussi bañ a jaxasoo ndax lu tax mën naa bañ a mooy bu fekkee ni kilifa dégg nañ am nañ dégg-dégg bu positif si ñaxtu bi. Mhm. war nañ cee mën a anticiper. arrêté ko donc buñ ci anticiper nag loolu mooy war a mën a taxal xëy na du jaxasoo parce que liy jaxas li mën a jaxase mooy bu fekkoon ni ki ñuy waxal waxuñoo moom ca waxtu wa. mais wax dëgg yàlla bu ñu dégloo comme ni nga wax syndicat yi wax dañ ca waxtu ñu war a waxee société civile fàttali nañ ni nañ ñu régler yenn questions yi nga xam ne dafay nekk saa su ne ay avancement avancement euh, yoon moo la ko may na la boo defee ñaari at war ngaa avancer ku ne yow miy liggéey fii su FM bëggoon nga li nga meloon ren déwoon bëgg nga mu gën. nit ku ne da bëgg a avancer. jàngalekat bi bëgg na avancer ba bu subaa waxuma sax xaalis bi ci gagné mais yenn compétition yi pour nekk proviseur wala nekk principal bu mën mën a def donc yooyu. nit warul tëj classe am bàyyi fa xale ya dem di lijjanti ay kayitu avancement am loolu système bi administration bi fonction publique ku nekk da nga war a jouer sa rôle ba nga xam ni kenn du génn sa classe pour ne damay dem rek ji pro avancement donc lenteur administrative yi nee na kilifa yi ne loolu ku ko faj jàppal ne faj nga li ëpp solo ci li jàngalekat di laaj beneen mooy problème mu équité ak justice si nan ngay yoree say doom. Mhm. man nguur laa kële privé la moom recruté na ay nitam mais man nguur recruté naa kii moo ngi tudd jàngalekat kii tudd infirmier kii tudd je ne pas pas euh, euh, agent trésor kii extra donc ñoom ay agent de l'état lañ ni may defek ñoom waxuma mu tolloo waxuñu égalité mais war na am benn équité ba nga xam ni duma ma jàpp ni da am segg ak seen kon te nag système de rémunération bi ñu ko waxee ci jamono yi 2011 ñëpp d'accord ni c'est déséquilibré ni ñu ko defee jaaduwul yoon ni am na ñoo xam ne ni ñuy ëppalee seen i morom toll na noo xam ne nii xel nanguwu ko te ñëpp ñu nekk ay agent mais si le président Macky Sall ne dafay def benn étude pour xam nag déséquilibre bi fan la féete. étude bi génn la nañ jàkkaarloog résultat études yi buñ ko ragal lu résultat yi recommandation yi li ñu wax lu mu métti métti nañ jàkkaarloog moom. buñ ko jàkkaarloo ñu natt ne bii recommandation dëgg la waaye waxtu yi lañ ko mën def noonu la ñuy fajee mbir yi donc système équité ba nga xam ni kenn du sentir ne dañ laa beddi loolu pour ñun am na solo lentre administratif war na war na am solo ensuite fexe ba monitoring yooyu ñu doon wax ba ñetti yu ne wala ñaari weer yu ne kilifa gu mag gi dajeeg ñëpp. pour wax poñ bu ne fan lañ ci toll. loolu am gëj naa am ci jamonoy élection présidentielle. ba léegi daje ba léegi daje amu fi léegi nag. Ah, dégg na gouvernement bi daje dajetuñu. déedéet maanaam am na ay pàcc yu daje ministre éducation mën naa daje ak ay jàngalekat ministre fonction publique mën naa daje ak ay jàngalekat au conseil woote na fi rencontre partenariat waaye rencontre monitoring dafa doon weesu loolu parce que day jël xam nga benn mbi bu bu amee jafe si mbirum jàng jàngale bi yenn saa yi dana am pàcc boo xam ne day laaj day laal ministère de l'éducation beneen pàcc buy laal ministère de l'économie ou des finance am keneen koo xam ne fonction publique la donc monitoring yi da doon dajale ministère concerné yëpp ak jàngalekat yi ñu waxtaan ci mbir mi fan ñu ci toll. élection présidentielle la mujjee ñun suñu demande bi at bi bi vacances yi commencé moo doon nañ fexe ba monitoring dellu si. ñu xam bu nekk même bu nekkee amatuñu premier ministre kan moom moo ko dirigé dégg nañ nag ni. ah fi mu toll monitoring yi ça président tànn na ko koy diriger mooy defe naa le ministre chargé du capital humain là. Mhm. PSE mooy Cheikh Kanté moom mooy diriger monitoring yi nee nañ ko mais dana am solo balaa école di ubbi rapidement nga provoqué nga convoqué première réunion de monitoring wax balaa dara xaw ngeen wax def le point quoi le point de la situation sinon li des bëreetul mais man du ma ko xeeb parce que li ñuy wax naan defar moom du wees mhm. du ma xeeb dara nañ jàpp ni ñi war a wax wax nañ nañ jàpp ni askan bi bëgg nañ am lekkool bu dal ndax bëgg nañ seen doom dugg l'école mais bañ a yem ci dugg l'école waaye tekkee fa mais loo gisee accords yi ñuy répété depuis Abdoulaye Wade accord accord accord mais quand même est-ce que def mënuñu jël logistique parce que jàngalekat yi soo leen waxee ñu ne ñoom du problème xaalis rek la ñuy laaj comme li nga wax léegi seen ay avancement ci la bokk avancement sax xaalis la xëy na peut-être mais xëy na si ay recherche recherche moom kenn moomu ko ñëpp ko war a def alors accord yi amoon ci Abdoulaye Wade Macky Sall am fi la ko fekk bi ñëwee puus na yi am na fi ñu fi yokkoon ak 15000 francs xaw ma lan jàngalekat yi ne ci rajo yi alors mais solution yaa en société civile mën leen a taxaw ne leen gars yi nguur gi bind dërëñu te ngeen a def lii jàpp waaw mais ñun day wax dëgg yàlla ñoo ngi jéem a bay suñu waar en terme de solution di jël suñuy xalaat di ko jébbal kilifa yi mhm. mais li ëpp solo mooy li ñuy wax volonté politique cest di dire il faut nguur gi ne man problème avancement fii ak ñaari at kenn doot ko waxati Sénégal mu jeex mu jeex dématérialisation xam nga ni léegi fi ñu toll wax dëgg yàlla soxlaatoo ngay wër àdduna bi pour am sa benn kayit léegi da ngay tappe say da ngay tappe ci internet bi am na bëgg d'ailleurs ñoo ngi fay profiter di remercier directeur de parce que léegi dugg na si digitalisation bi tax ba nit ki fi nga nekk mën ngaa xool xam sa salaire ñaata la jot say jot jot say solde jot say bulletin fi ñu toll si jamono ji lañ toll kon euh, bi ñu bëggee régler problème mu carte d'identité yi su trouvé nañ solution carte d'identité yi mmh. trouvé nañ solution donc li ñu jàpp mooy nguur gi mooy am volonté ne tel mbir bi biñ ko commencé wax ak léegi yàgg na mmh. dootu fi amati mu planifier ko de manière rigoureuse ak ses techniciens ne fekk ñaari at wala fekk at ak genn wàll fi fekk ñetti at dootu fi amati loolu mooy volonté politique mais sinon comme ni nga wax c'est toujours les mêmes questions. même cool yi mooy am. même tontu bi lañ koy jox. donc même résultat ngay am soo bëggee am yeneen résultat il faut nga changer tontu bi ngay jox question yi nga xam ne moom la ñuy loolu pour ñun volonté la dem nañ ay dëkk yu mel ni Japon mais da ngay jékki-jékki ñu ne année bi benn priorité kese la ñu am mooy dañuy régler lépp luy environnement des apprentissages classe ak la ñuy lijjanti. kese waaw benn an benn priorité rek bu ñu kenn sonal ci leneen keneen ki ne bon man écoute année bii bi jot atum euh, enseignant bi laay lijjanti rek seen format extra donc au moins nga am benn sur priorité ci ci coow li am lépp ne lii war nañ koo def faase ko ba nga xam ni parce que comme ni may tam di wax système éducatif buy dund dafay war di am coow. dafay am ay jafe-jafe am ay bëgg-bëgg yu bees mais nag na nekk yu bees waaye bu fekkee ni coow li amoon daaw moo fi ñëwaat ren moo fi waaj a ñëwaat déwén boobaa na lay mel na ñun am amuñu volonté wu avancé kon nag ñun jàpp nañu évidemment su amee une réelle volonté politique mu am ñu retrouver confiance confiance na fi muy lalu mooy li nga digge woon daaw nga def ko mais bu fekkee ni yow nguur li nga digge defoo ko ñu toppaat la nga diggewaat defaatoo ko nga defaat ko ba ñetti yoon boobaa kooku dootu la wóolooti kon dara confiance bi. waaw waaw après gars yi dañuy dem dem ci grève bi tout ça alors rentrée scolaire bi nii en perspective wala bon rentrée scolaire <laughs> généralement fu gars yi toll parce que affaire bi naka ngeen ko xalaatee yéen en tant que société civile en tant que COSYDEP rentrée scolaire ak li ci aju. waaw que ma jox la information euh, à Saint-Louis par exemple suñu jëlee exemple Ndar te jii am na école yoo xam ne ndox maa nga fa la gën a gën waaw waaw waaw c'est-à-dire que. waaw waaw c'est xam nga. loolu tamit c'est récurrent chaque année c'est comme ça. donc rentrée bi dafay nekk moment bu am solo ci képp ku nekk ci secteur éducation. xam nga ku ne da am sa bis. Mm-hmm. ñun bu école maa ngi fàttali bi ñu nekk xale. bis boobu da ngay sol yére bu rafet. xam ne tey jii moom feet la xew la. <laughs> maa ngi dem maa ngi dem uti ji xam-xam dajeeg sumay xarit. te xëy na ci école boobu may jàng jee. fa lay tekk ji suba ba nekk ministre. Mm-hmm. wala nekk homme d'affaires bu mag wala nekk un grand journaliste. Mm-hmm. wala nekk jàngalekat bu mag donc rentrée école bis la bu màgg ci xale yi nañ ko màggal ñu ñëpp fonk ko fonk ko préparer ko waajal ko waajur yi préparé wu xam nañ ni dëkk bi ja am nay jafe-jafe mais nga commencé ko planifier utul ko benn ardoise benn kaye naxante ba ba buñ ci eggee mu am jàmm mais rentrée scolaire ñu fàttali ni am nañ école yoo xam ne ubbi nañ fi ñu toll ni Sénégal am na école privée yoo xam ne ubbi nañ déjà démarré nañ démarré nañ donc rentrée bi di ñëw mooy li ëpp ci l'école yi évidemment que ñoo ngi koy xaar ci début octobre premier ak 3 octobre ci la ci la war a demal donc fii ak quelque ay bis rek moo ci topp war nañoo mën a xool lan moo mën a indi gàllankoor pour que l'école yi ëpp ci suñu Sénégal mën a bañ a am rentrée bi gën xam nga ñoo fi indi woon ñun campagne ubbi tey jàng tey. Eh, parce que ça n'a pas été réussi. si ça n'a euh, pas xam nga xam nga boo may àtte man danga may àtte ci ci li nga xam ni moom laa si jublu woon. bu nekkee ni man suma ambition c'était poser le débat. fexe ba nga xam ni askan bu ne da nga xool ni man suma lekkool ne serait-ce que ma xam li tax ba ubbi tey jàng tey du mën a am campagne bi tax na ba ñu ñu waxtaan ci ba jàpp ni ah ñun kat problème mu ndox moo tax ubbi tey jàng tey duñ ko def wala ñun kat euh, matériel bi manqué moo tax ubbi tey jàng tey duñ ko def wala extra donc pour ñun déjà loolu par en tant que organisation de la société parce que ñun amuñu école ñun amuñu jàngalekat ñun amuñu élève li ñu mën way joxe ambition ne kat waruñoo nangu ñu ne waxtu wi la ñuy ubbi toog ñetti weer wala ñaari weer wala weer ak genn wàll doo ko ubbi kon nag il faut ñu fexe ba nga xam ne li ëpp suñu l'école bu ñu ubbee dañuy tàmbali jàngale. loolu mooy ambition bi loolu mooy ambition maintenant ñun gëm nañ ni réussir na parce que benn bëri na ay l'école yu koy def même bu dee ñett ñeent bu nekkoon ñett ak ñeent yooyu ñu ko def mais à cause de la campagne ñu koy def kooku mënoo ko tuddee échec. yeneen ñeent defaat. yeneen añ bu am am ñu yokk. Ah, bu nekkee ni aussi ki doon toog weer ak genn wàll. à cause de la campagne ubbi tey jàng tey léegi fukki fan ak juróom lay toog pour école am ubbi kooku it pour ni dañ koy jàpp ni réussite la bu fekkee ni maire bi nga xam ne da doon toog ba mois d' avril doo ko joxe li muy jàppale jàngalekat bi euh, école bi doo ko indi léegi ñoom seen bopp sa dañuy wujjee ku nekk nan man suma gox danañ réussir ubbi tey jàng tey dinaa joxe suma subvention à tel à tel moment dinaa indi cahier créé à tel moment pour ñun loolu aussi mën nga jàpp ni réussite la kon te nag ñun jàpp nañ ni évidemment que loolu dafa nekk ambition maintenant li ëpp suñuy école ñoom mën nañ koo def parce que lépp suñu école dunduñu ndox boobu ngay wax maintenant am na nag ay école yoo xam ne objectivement ñoom mënuñu def ubbi tey jàng tey parce que école boo xam ne amoo foo jaar pour dugg ndaw ndox mi kooku du mën def ubbi tey jàng tey kooku da nangu ni objectivement mënu ko def maintenant li ngay xeex mooy man en tant que nguur en tant que nguur xam naa ni hivernage bi ñu toll taw bi bëri na bëri waaye boo xam ni par force dana impacter ci fonctionnement léegi ndox maa nga fa jël ay dispositif boo xam ni. même bu fekkee ni ñoom du ñu def ubbi tey jàng tey waaye waxtu wi ñu nar a perte du tollu li ñu doon perte avant. kon tey pour ñun capacité d' anticipation boobu bañ a nekk ay sapeur pompier kese. bañ a xaar ba bisu école ba ñu naan dañuy génnee ndox ma. Hmm. mais à de léegi ju xalaat ni euh, war nañ war nañ cee jublu. loolu pour ñu dafa solo loolu des maires je crois que maires yi ñoo war a jël ay comme ay élus locaux yi ak yu demee noonu seen kenn ku nekk sa gox nga taxaw ci anticiper ànd ak préfet bi wala gouverneur bi dem seet école yi déjà ñooy bàyyi ba école tijji rek war nañ ci ñu def bi wala préfet bi voilà tout se tout se déroule normalement nanga ma kenn aru ko en amont war nañu teel dindi yenn affaire ñëpp ci war a def parce que nee nga maire bi war na ko def waaw parce que war na xool moom ay parce que ay Euh, jàpp nga ni organisation de jeunes yi boo jëlee ASC yi mm-hmm. ASC yi ñoom ñoo nekk ci école yi fa la ñuy entraînement yi fa la ñuy waxtaane fa la ñuy naanee ataaya mm-hmm. suñu ne woon ASC bu ne dana toppatoo benn école une ASC une école loolu mën na see jàpp du faj lépp mais dana dana ko lijjanti mm-hmm. man mi nga xam ni euh, organisation de femmes la ou de jeunes imam bi nga xam ni mën na cee waxtaan war nañ cee mbët ñu jàpp askan bi kenn par kenn ñun def nañ benn gëstu ci ndox mi nga xam ne moo doon jël yenn l'école bi ñu ko defee amoon na zone boo xam ni dañu seetlu woon ni école yi ëpp yi am ndox askan bi dañ doon bëtt école bi pour ndox bi génn seen i kër dugg ci biir l'école bi donc ban rapport la ñu am ci lieu public boobu est-ce que l'école bi bu comme ni may defee bu fekkee ndox maa ngi bëgg jël suma kër ni may def ba dem protéger école bi def fa ay saako maa xam ne may def ba protéger ko temporairement loolu aussi loolu tamit dana ko faj nguur gi moo ci war a jiitu ndax nguur gi moom moo yore service yëpp moom moo yore eaux et am nañ ci njariñ moo yore sapeur pompier yi moo yore service civique national donc bëri na ay ay ay pàcc yoo xam ni moom bu ko mobiliser à temps ah duma ma ne de ndox du am ci bisu ubbite bi waaye ndox mën na faa bañ a yàgg ba gàllankoor xale yi ëpp mais daal ñun ci mbirum ubbite bi li jàpp mooy benn nañu fexe ba école yi nga xam ne yëpp mën nañoo ubbi ci ci bis ba tàmbali jàng bi euh, ñu def ko ñi nga xam ne mënuñu ko def war nañ leen gunge gunge waaye bi nga xam ni bu ñu waree perte temps it mu nekk perte temps boo xam ne dana da nekk du limité wu askan bi na ñëpp jàpp ne mbirum ubbite l'école bi suñu mbir la ku nekk am nga ci benn rapport boo ci def nañu fexe it ba au delà de ubbite l'école bi ñu seet nan la ñuy protéger année scolaire bi ni ñuy protéger année scolaire bi nag mooy question perturbation yi am mu bañ a am te pour mu bañ a am jafewul am na waxtaan wu ñu wujj waxtaan yaa ko fàttali 30 avril am na lu ñu fa tënk joxe ay date na nguur gi nekk ci jëfe li mu diggee bu ñu ko defee jàngalekat bi day toog ca classe ba warul génn ca classe ba topp di di topp ay dossier di jàngal xale yi. Ah. bu ko defee waajur ba dana topp di xamante kan mooy jàngalekatu doomam nekk en lien avec moom di continuer ak approfondir li mu ko jàngal bu ko defee nguur gi ku nekk en parce que on parle de système dafa mel ni oto wala mel ni càq. ou lu nekk dafa am njariñ benn ëppul sa morom njariñ la jàngalekat bi ëppul njariñ waajur bi waajur bi ëppul njariñ euh, élève bi élève bi ëppul njariñ société civile bi ñu ñëpp am njariñ mais ne da nga am benn rôle nag ku nekk jouer pleinement entièrement loolu bu ñu ko defee yàlla mën naa def. Euh, année scolaire euh, euh, taxaw daal mais mais xam nga dafa benn benn mbir boo xam ne moom waxuma ne sax Macky Sall man je demande est sax Abdou Diouf fekku ko fii que souvent loolu ba ci Serigne Mbaye Thiam barki Demba Ndiaye def ko doon wax surtout au sud du pays vers ay Sédhiou ak yu demee noonu li ñu tuddee abri provisoire am na benn jour fii ci benn réunion de rédaction may tooñ sama gars yi man leen mais il faut enlever le mot provisoire. comme ça comme mi ngi fi kay. abri provisoire buy buy buy durer ay dix ans ak vingt ans quinzaine d'années. dootul provisoire hmm. année abri provisoire il faut enlever le mot provisoire da xam ne abri rek bu ñu wax. Hmm. alors léegi la solution selon comme yéen ay société civile yéen mos ngeen ci xalaat. waaw ñun xalaat nañ ci ba jàpp la solution la solution elle est locale parce que xam nga solution abri provisoire moom mooy abri provisoire na wuyu turam. ñun d'accord nañ ni amul xale bu war nekk ci mbedd bi waaw mais provisoire il faut déjà ñu juboo ci lan mooy durée wu provisoire abri warul weesu ñaari at si ñaari at yooyu nga defandoo ko mu jàppandi jàppandeegum en attendant nga planifier pour que bu ñu génnee ci biir ñaari at yi mhm. nga commencé nag di changer abri bi dootul nekk ci provisoire mu nekk école buy répondre ci norme de yi loolu pour ñun mooy premier mbir bi mooy lan mooy provisoire quelle est laa durée beneen bi mooy abri provisoire pour nga jëlee ko fi da koy remplacer da ngay tabax lu koy da koy remplacer. li koy tabax boo jëlee ci estimation wu nguur gi cher na ay 6 millions 700 la ñuy wax ak million millions 500 et cetera mais askan bi am nañ ñoom ay modèle d'école yoo xam ni bu ci nguur gi bu leen ci nguur gi gu gungee jàppale leen ci mais dañuy dañuy mën a remplacer abri provisoire yoo xam ne ça coûte moins cher 1 million 500 2 millions 500 les modèles communautaires donc il dispositif la ñu mën a am pour que école bi soxlawul muy nekk nekk naa benn village boo xam ni. Euh, ay ay ay banco la ñu defaree la ñu defaree kër yi mhm. mais pourquoi man may indi beneen matière di day indi sax euh, tu vois confusion waaw donc nu ñuy fexe ba solution locale yi ak li am ci askan bi parce que askan yi pare nañ pour gunge leen loolu moom mooy nekk li mën a faj abri provisoire beneen ñetteel bi nga xam ne mooy faj abri provisoire mooy nga planifier ko mhm. boo nee man bëggatuma am abri provisoire danga ko am mais soo nee fii ak fukki at bëggatuma ko am sa biir budget ni nga koy orienté war nañoo mën a gis que sa biir constitution scolaire évidemment da ngeen mën sax maintenant am abri provisoire nag warul tekki nag nga bañ a tijji ay école yu bees parce que gis nañ ni évidemment que nguur gi certes def nañ ay jéego ci mbirum ab provisoire yi am nañ ay programme ñoo ngi tabax ay école la ah, pour wax dëgg parce que tamit wax waxtaan wax dëgg ci la ñoo ngi tabaxaat ay école ñoo ngi euh, yokk carte scolaire bi am na école yu bees yam waaye au moment où ñoo ngi tabaxaat ay école en ce au même moment ñoo ngi seetlu ay classes yu tëj di seetlu retour loolu ñu tuddee classe double flux mooy jël ñaari xale ñaari groupe dénk ko benn élève te loolu doo doo ci am qualité ah ñoo ngi seetlu euh, ça c'était en deux mille euh, en deux mille euh, deux mille quatorze deux mille xale bu ñëw inscrire au mois de mai mois de d'octobre mu ñëw war a dugg classe ñu ne ko doo jàng ndax amuloo jàngalekat jàngalekat doyul konte nag war nañoo remplacer abri yi di rafetlu jéego yi ci am mais jàpp ni war nañ ko accélérer fexe ba xaalis bi ñu ciy dugal bu ñu bu ñu jëlee les solutions locale mën naa doy pour résorber li ëpp ci abri provisoire yi am Sénégal bu ñu jëlee les solution locales. mën mën na koo rey pour pour pour résorber tout ça donc pour ñun loolu dafa nekk mbir bi nga xam ne dafa am solo waaye abri provisoire tamit di ko faj warul tax ba nga delluwaat nag ci normes yi nga xam ni du la indil qualité mooy nga delluwaat ci classe yoo xam ne day fes dell wala classe yoo xam ne da ngay tëj ko wala boog indiwaat ay double flux wala moom ay yoo xam am nañ droit jàngi mais du ñu parce que simplement amuñu jàngalekat. d'accord ba euh, en tant que société civile waa COSYDEP ma fàttali mbokk yi ba léegi ñu ngi toog ak euh, Cheikh Mbow. Euh, maintien des jeune filles à l'école est-ce que mas ngeen toog benn jour ngeen ne loolu dañ cee war a xeex mu nekk parce que tamit dafa dañoo am ay réalités socio-culturelles yoo xam nii par exemple au nord du pays am na foo xam ne fii xëy na jigéen ñi dañ leen di teel a rocc yi ñu nekk ci yenn activité nekk ci tool yi et cetera te xale bu jigéen bi jàng gi ñu war a jàng dafa dafa baax ci. en fait dafay protéger wàllu sax année scolaire bi parce que jigéen a góor ñoo bokk pratiquement ci xam-xam est ce que mas ngeen toogam yàgg ngeen ni daal euh, gis def nañ ne taux bi dafa yokk wala Sénégal fan la ci xam nga xam nga xam nga bu ñuy set euh, Sénégal bu doon natt jamonoy OMD yi. waaw ñu génn deux mille deux quinze. fi nga xam ne dañ ci doon bàkkoo parce que defoon nañ ci jéego. moo doon loolu maanaam jigéen ñi nga xam ne ñoo dugg l'école léegi dem nañ ba ëpp sax góor ñi. ah ba tey yaa ngi dégg sax ñu naan Esco gaa xam nga dañuy wax ko fii. oui les filles ñu ne Esco gaa ñu ne maatam boobu ñu ne la war nañoo sax trouver politique boo xam ne góor ñi dañoo dugg ci l'école bi. booy seetlu bu njëkk soo yoroon doom da ngay def arbitrage góor ñi ngay dugal jigéen ñi nga bàyyi leen. mais léegi bëri na ay waajur yoo xam ni. nangu nañoo dugal seeni doom ñu jàngi. Mm-hmm. jafe-jafe bi ci am. Mm-hmm. mooy plus on avance moins il y a des filles. maanaam maintien bi danañ dugg dugg bu bëri. Mm-hmm. waaye bu ñuy gën a avancer ba ci kanam Euh, dañuy obligé ñu bari dañ leen commencé di génnee ci l'école bi moo tax ah, dañuy dugg génnaat dañuy dugg génnaat dañuy dugg bu ñuy mën na bu ñuy dugg ñooy ëpp góor ñi mais bu ñu demee ba classe ba changé niveau dem au niveau CM euh, waaw de de en waaw sixième euh, affaire changé nga dem ba université ñu gën a tuutati kon maintien bi na lañu fexe ba ñu bañ a yem kese ci dugg mais ñu téye leen ci l'école bi loolu pour ñun moom mooy li ñëpp d'accord ni mooy li ñu war a def loolu pour def ko am na ay solution yu bëri yoo xam ne nit ñi teg nañ ko ci table bi benn bi mooy fexe ba jigéen ñi nga xam ne ay jigéen modèle lan ñu gën leen ñu gën leen fësal mooy waral ba euh, waajur bi su yóbbee doomam bu jigéen dana jàpp ne ah war naa mën a tekki doon kii nga xam ne modèle la mhm. konte nag ndekatekat góor baax na jigéen baax na mhm. euh, mooy waral nga war a jël recruter plus d'enseignantes ay jig jàngalekat yu jigéen ñu nangoo dem nag ci àll ba ci gox goxaat yi mhm. ba nga xam ne buñ ne ah, école bi ñuy jàngalekat du école góor kese ndax jàngalekat yi fa nekk ñëpp ay góor lañ. Hmm. kon ndeketakat jigéen sax mën naa dem ba nekk jàngalekat. Hmm. donc modèle yooyu bu ñu ko continuer di renforcer dina mën a tax ba du ñu bedd kenn parce que ñun muy war pour ñun bedd yi waruñu ko def muy góor góor nga wala jigéen nga. Hmm. warul am ndax da dëkk ci taax ya wala da dëkk ca euh, ci monde rural bi ci àll bi. warul am parce que da am handicap. wala amuloo handicap. warul am parce que sa waajur dafa am wala sama waajur amul mais képp koo xam ne doom la. képp ko xam ne doomu askan bi la sa premier waajur moom mooy état du Sénégal mooy gouvernement bi war na fexe ba fukki at juróom-benni at bu mu tuutee ba tuuti juróom-benni at ba fukki at ak juróom-benn waru génn ci l'école bi war naa mën a jàng war naa mën a jàng ba am le minimum de compétence parce que suñu loi d'orientation article 3 bis moo ñu ko fàttali ne obligation la te obligation bi ki xam ni moo moo mooy moo moo yore obligation bi moom lañ tuddee nguur di état konte te nag amul kenn ku ñu war a beddi muy góor muy jigéen muy ko am ak ku ñàkk muy ko xees wala ku ñuul muy ku dëkk Casamance wala nga dëkk Ndar wala extra extra donc pour ñun. Mhm. Euh, droit à l'éducation dafa nekk lu ñu war a respecté. te ki nga xam ni moom moo yore moo koy garantir kooku la ñu tuddee nguur di état. dama gis nga bind fii perspective ak rénovation ou revendication perspective yi par exemple. waaw pour ñun perspective yi euh, wax dëgg yàlla. mooy nag jot na nag euh, Sénégal li nga xam ni ko dañ ko ci mbirum euh, waxtaanu njàng ak njàngale muy assises nationales yi. Mm-hmm. di accords yi am si jàngalekat yi parce que Sénégal mënuñoo wax ni waxtaan manqué na fi. Mm-hmm. lépp li nga xam ne waxtaan nañ ko tënk ko. Mm-hmm. jot na nag ñoo nekk ci pragmatisme bi tax nag ñu koy jëfe loolu pour ñun am na solo li ñuy tënk di ci waxtaan nañ koy jëfe loolu benn mbir mu solo beneen bi si mooy euh, bu ñuy wax njàng ak njàngale ñu bañ di beddi. Euh, ñu mën cee ñu mën cee am compréhension bu yaatu ba nga xam ni du benn forme école fépp fu ñuy utee xam-xam bu ñu waree a beddi hmm. daara ja école la école la boo xam ne sax en terme de construction de valeur raw na fa école tubaab bi daara ja waruñu ko beddi war naa mën a am financement bu doy jàngalekat ba ca daara ba war nañ koo mën a tàggat ni mu waree gunge ko ni mu waree élève ba ca daara ba war nañ ko mën a toppatoo mais jàng jàngale c'est tous les lieux d'apprentissage école bi nga xam ne mooy fi ngay jàngalee menusier wala dafa jàng mécanique te yow mi boo paanee tey ci moom ngay dem bu fa boo fa demul euh, sa sa sa du baax kooku dafa war a nekk lieu d' apprentissage bu ñu toppatoo mooy tout ce qui est lieu d' apprentissage euh, formation professionnelle enseignement technique kon te pour ñun gis-gis bi ñu am si njàng ci gunge njàng ba bañ a beddi tout tànk yi muy peut-être bañ a beddi ñi mag ñi ak jeunes yi nga xam ne war nañu am xam-xam tey boo jëlee téeméeru sénégalais lu ëpp juróom fukki yi liir ci benn làkk ñoo bind ci benn làkk mm-hmm. alphabétisation mm-hmm. amul réew nag bu la ne suba mën naa tekki ak askan bu mel noonu réew boo dem ñu ñuy tukki da ngay xam ne foo dem ñi rawante mooy loolu da ngay dem ba ko ne da ngay am autonomie da nga dem fi ngay dem te doo soxla laaj kenn mm-hmm. da nga mën a am autonomie wu lijjanti say mbir donc alphabétisation langue na loolu pour ñu am na solo comme j'ai dit non formel bi moom mooy daara yi dafa nekk aussi beneen lieu d'apprentissage boo xam ne waruñu ko di fet fet mais li ëpp solo mooy li nga xam ne moom nañu gisee ni moom mooy war a nekk li war a tabax suñu ëllëgu suba nan la ñuy fexee ba mu ànd ak suñu gëm-gëm ànd ak suñuy valeur ànd ak suñuy bëgg-bëgg loolu jaratul ñu ci wax bu gudd parce que wax ci wax bu gudd sax bari wax la parce que li ñu ci war a wax yépp tënk nañ ko ci loolu ñu ci dem assise de l'éducation de la formation pour ñun loolu war nañ koy war nañ ko jëfee la crise des performances maanaam xale jàng ba def juróom benn at te mënul lire mënul bind loolu daf ñu dafa grave dafa nekk loo xam ni daf ñu war a yitteel ñun daal jàpp nañ ni Euh, yooyu yëpp ay éléments de perspective la yoo xam ni. buñ ci jubloowee régler la question de l' état civil. Mhm. kayitu juddu xale yi waaw xale yi parce que oui. kayitu juddu xale yi xam nga kayitu juddu moom boo ko amul day mel ni bokk bokkuloo juridiquement tu n'existes pas. Mhm. donc am na ay mbir yoo xam ni war nañ ko mais aussi fexe ba kase mur yi diggante yi am diggante éducation ak yeneen secteur mhm. il faut éducation ak santé ñu koy sentir. éducation environnement. éducation agriculture jàpp ni éducation njàng njàngale wax dëgg yàlla moom rek la ñu mën a jaar. pour suqali ak pour développer suñu réew donc nan lay fexee ba gunge santé bi ba yenn feebar yi sax mbirum njàng ak njàngale continue bi ak ni ñu koy doxalee moom moo koy moom moo koy moo koy araftu nan la ñuy fexe ba mu gunge problème mu environnement nan lañuy fexe ba mu gunge tout autre secteur de développement donc vision holistique boobu daal. Mhm. pour ñun buñ ci eggoon. Mhm. ba nga xam ne njàng dootul yem kese ci scolaire. Mhm. mais njàng dootul nekkati kese aussi ci instruction mooy joxe kese ay xam waaye day nekk jikko ak yeneen. Euh, ba nga xam ne njàng du yem kese jàng waaye njàng day tontul santé tontul environnement tontul agriculture. Mhm. tontul ces question de civisme dont on parle. loolu bu ñu ci eggee en terme de perspective booba nag la ñuy am nag euh, un système éducatif bu dëgër. fort quoi bu fort boo xam nag dana mën a porter nag. développement mais mais mais Cheikh Mawone dafa am benn benn secteur aussi toujours dans l' enseignement mooy le secteur préscolaire ah préscolaire euh, ak tam alphabétisation wax ko ko léegi ñi nga xam ne ñu ngi leen di jàngal pour ñu mën a lire. mais presse scolaire seen budget bi tuuti na de d'après li ma gis ci góor gi li góor gi Sow wax. waaw góor gi Sow de. mooy pour cent là c'est ah, terrible. wax na dëgg de loolu de mooy li am. waaw li am daal mooy. c'est terrible waaw c'est terrible moom muy muy muy muy muy muy non formel bi non formel bi alphabétisation zéro virgule pour cent la moom sax moom. zéro virgule dix-huit pour cent. góor gi ñoo ngi koy sant. waaw parce que xam nga bu ñuy wax sànq bi la yaa ngi may laaj ci qualité xam naa lu yitteel la. oui yitteel na askan bi yëpp mais qualité dañ koy tabax. ñoo ngi koy tabaxee ci commencement bi ci tàmbali bi xoolal fi ngeen dëkk yi nga xam ne da leen jàpp naw leen mais ci dëpp bi ñuy nàmp la ñuy tabax qualité lan la ñuy fowee nu ñuy nekk ci ordinateur bi nan lañ leen gunge bu ñu bu waajur demee jàng ci lan la ñu nekk commencé di extra donc yooyu dafa am solo qualité dañ koy tabax naa bu nekkee da nga ko bëgg tabax nag donc yow mi nga xam ni nguur jàpp nga ni qualité bi ñoo ngi koy tabaxee ca base ba ci suufa suuf mooy petite enfance fi muy feeñee du ci ay wax mais ci xaalis bi nga koy jagleel la bu fekkee ne jël nga téeméer ne téeméer bi pour mbirum njàng njàngale waaye jël loo ci sax benn fistine dama koy jox petite enfance mooy yow nguur gëmuloo ni qualité bi ñoo ngi koy tabaxee ci suufa suuf parce que ni ñu lay nattee ñun en tant que organisation de la société civile mooy ni ngay orienté sa budget rek dana tax ñu xam yow lan mooy sa lan mooy sa véritable volonté ak yan mooy sa conviction politique mm-hmm. mm-hmm. donc pour ñun am na solo évidemment que petite enfance ñu am beneen rapport ak beneen gëdd boo xam ne war nañ ko jox mm-hmm. ba tey jii booy seet ñun signé nañ agenda 2030 mais agenda 2030 bokk na ci li mu wax mooy que ni une année de préscolarisation gra euh, gratuite et obligatoire da cee bokk. léegi nekkatu sax loo xam ne dafay nekk euh, dafay nekk optionnel ko que boo ko bëggee ngay dem defi ci préscolaire ou pas. Mhm. mais par force xale bi war na bu tuuti ba tuuti war na def benn année de préscolarisation loolu bokk na ñun ñoo ko signé. kenn forcé wu ñëpp ñu signé ko. donc non Sénégal moo ko signé. Ah, Sénégal si agenda 2030 réew mi donc loolu bokk na ci li tax au moins ñu war ko respecter alphabétisation langue nationale non formelle. kooku liñ ci wax mënuñu wax lu ko ëpp fi ñu toll expérimentation pour que euh, langue nationale dugg def nañ ci ba mu doy. li ci def mooy ñu am courage courage courage courage dëggal ko ak yaatal ko alphabétisation relation bi am entre. langue yi ñu codifié ba mu yi ñu yi ñu tànn quoi laa bëgg wax ba ne leen ñi ma mën nañ koy jàng set la ko mu huit wala yëpp la. waaw donc y' vingt deux langues. yoo xam ne vingt léegi vingt yooyu yëpp nag dañu jàpp ni liñ ciy gis mooy. Euh, expérimentation si nan la ñuy jàngalee jaarale ko ci pulaar bi wala séeréer bi am na suffisamment d' expérience yu ñu def am na école pilote yu nga xam ne am na ci. mais jàpp nañ ni ex essayé bi dafa yàgg. bunu mhm. ñoo dëkk rek ci ah, ay essayé boo essayé ba pare da ngay jël décision décision mooy du def langue nationale wala décision mooy damay def langue nationale du ma ko def wala dama koy def da ngay jël décision te li te li ñu jàpp mooy amul ñun gis ñu benn réew boo xam ni suqali na ba ñu koy tudd te mu mu jàngee ci beneen làkk amul. c'est difficile. avant am dafa amul dëkk boo xam ne sukkandiku na ba ñu ñëpp di ko tudd te mu jàngee ci làkk jàmbur amul sa làkk meew. bi nga nàmp moom nga mën a moom nga mën a gën a gaaw a xam. ne donc loolu est-ce que jub dafa mel ni juboo nañ ci ñun ñëpp tey li ma lay wax ni boo laajoon enseignant yi loolu lay wax nga laaj nguur gi mu wax la ko nga laaj la yow mi doon koy wax donc juboo nañ ci li ci des mooy nañ jëf nag maintenant. action application nañ jëf te fi ngay fi ngay tàmbalee jëf bi mooy xaalis bi ngay jagleel loolu. dafa war a toll ci gëm-gëm bi nga ci am. te bu fekkee ni 0,12 pour cent nga toog nga nga nga nga nga nga jébal loolu évidemment day mel ni. ngëm-ngëm euh, ah. bi des na. Cheikh daal ak ñu ngi ci catal waxtu yi ñu ngi may signaler sax dama heure parce que waxtaan dafa neex lool oh, macha allah <laughs> xamul sax nii lay demee. Ah, pour pour tout le li may tëjee daal mooy. Euh, jàpp ni euh, ñun de wax dëgg yàlla au niveau COSYDEP du ñu découragé du ñu xàddi du ñu bàyyi du ñu démissionné hmm. gëm nit ni. Sénégal kenn amul droit démissionner ci mbirum njàng ak njàngale quel que jafe-jafe yi. Hmm. d'ailleurs sax euh, punkal dëgg ñoo ngi koy xam ci bu nekkee ci ay jafe-jafe. Hmm. donc jàpp nañ ni kenn warul xaddi gëm nañ aussi que ni njàng ak njàngale am na solo boo xam ne man ma jàpp ni mbirum président la wala mbirum ministre la dama jàpp ni man maa ko ci ëppale te dinaa am fulawu bay suma waar ba mu mat sëkk. tey jii bu fekkoon ni béyu ma suma waar wala ma am neneen lu ma mel ci jamono bi fi président Abdoulaye Wade tey ji boo amee changement ah man may yëg jafe-jafe yi nga xam ne ak gàllankoor yi am konte nag am na fulla boo xam ni dama koy génnee ci lépp luy débat politicien ak perception politicienne beneen bi mooy ñu am askan boo xam ne dootuñu nangu mel ni ku dem ca stade ba nekk spectateur naan bii bu dugg nañu tàccu bii bu duggul kii aayul waaye dañu war a nekk ñoo xam ne dañu war a gën a actif dugal seen loxo gën a exigeant mhm. nekkat lii moo ñu war lii la ñuy laaj lii suñu suñu gëdd la ko moom dañu ko a def donc loolu pour ñun pour ñun am na solo bi si des di ko tàggoo mooy di ñaanal ñëpp euh, mu nekk mu nekk ndugutal lekkool bu bu am bu am dal di ñaan yàlla euh, ni kilifa yi xëy na ñu déglu ba faj Euh, ñaxtu yi nga xam ne ñoo ngi koy dégg mu jóge ci syndicats yi ak enseignants yi. ba nga xam ni euh, ni ko ñenn ñi jàppee ni at bi dana jaxasoo ñoom ñu indil ko ay tontu ci fukk fan ak juróom yi ba nga xam ni euh, dal dana am xel dana dal. loolu bu ñu ko defee. pour ñun dana dana dana am solo kon nag. di rafet lu baax invitation bi. merci di ñaanal askan bi yëpp ñu dugg ci atum jàmm. Hmm. génn seeg jàmm xale yi tekkee ci mais bañ a yem kes si dugg waaye bu ñu duggee it ñu réussir. d'accord jërëjëf Cheikh Mbow bu COSYDEP mbokk yi ñu doon déglu ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen invité wasalaam.